اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين أحمد يا تي في نيدي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ادل السؤال تسنو اميسون بي تدى الاسئلة والاجوبة في رمضان الا اكاي كونت تي ngeen ci ànd ak seen mbokk al Oustaz Abdoulaye Fall tey ñëw ci sunu ñaar fukkeelu laaj muy laaj ni njaboot te ngi nii dañuy seen wayjur dafa génn àdduna taami woon boru ndax mën nañ ko ci wuutu fayal ko ko pour tontu loolu lañuy borom xam-xam yi dañu ne loolu mooy sunna ndax rot la ci xadis boo xamante ni xadis bu wér la xadis boo xamante ni muttafaqun alayhi borom xam-xam yi dëppoo nañ ci ne wér na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni mata wa alayhi siyamun saama anhu waliyuhu képp comme te ni faatu na te moom faatu bàyyi na boru koor njabootam mën ko ci wuutu fayal ko ko loolu boroom xam-xam yi am ci ay gisin ñu ne bu fekkee dafa amee bor ci koor wóoru ko ba faatu dañuy xool bu fekkee daf ko yeexet fay ngir ngantugu mu amee feebar loolu jokkale ko bamu mu ca faatu mooy wérul ba feebar ba ca faato kon kooku lam yajib alayhi shay'un kooku du war ci moom lenn ndax farata boobu jàppandiwul ci moom mu jëf ko mu fay ko ba dee dikkal ko kon dafay rot ci moom comme ni nga xamante ni aj waru ko bu fekkee nag ngantal na yëkkat na yëkkatiku na ci moom mu jàppandi pour mu fay ko mais wooru ko ba faatu ñu ne dafay lelal miskin mu nekk mu jox ko mudd ci bépp bés boo xamante ni waroon na ko woor te liy tegtal ci loolu mooy xadis bu ibnu omar nettali na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne man maata wa alayhi siyaabun fal yutim mak makkaana kulli yawmin miskinun ne képp ko xamante ni dafa faatu te ame boru koor day bés bu nekk bu mu waroon woor da ciy lalal mu remplacer koor googu ndax jaamu yàlla boo xamante ni nit mënu ko ci wuutu kon dafay lalal mais kenn du ko ci wuutu di ko fayal loolu lañ dox liannahu ibadatun la tadxuluha niyaba jaamu yàlla boo xamante ni kenn du ci wuutu nit di ko ko defal dikki noonu it bu muy dund kenn du ko defal bu deewee kenn du ko defal fi xaalil xayaati wala tadxuluha anniyatu baada al bu deewee kenn du ko ci wuutu ko defal niki julli xamante ni julli bu xasee faatu kenn du ko defal beneen julli di ko ko loolu wax la yoo xamante ne rot na ci nga xamante ne amee na boru koor ba génn ah, ci ñaari xadis yooyu yonent bi te mooy bu njëkk man maata wa alayhi siyaamun saama anhu waliyuhu am ñu ne ah man maata wa alayhi siyaamun fal yutim ku faatu te amee paru koor daal li ñuy def mooy dañ koy dañuy remplacer koor ga it am lelal waaye kenn du ko ko remplacer di ko ko wooral loolu wax la yu ci rot yoo xamante ne borom xam yi bu ci nekk am na ci gisin te gisin bu ci nekk ci xaadis lañu sukkandiku yàlla na yàlla def ñun dégg ak topp yàlla barkel kon ko am lu ci gëna leerul rek mu jaar ci 77 849 45 01 وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأسئلة والأجوبة في رمضان مع فضيلة الأستاذ عبد الله فال أي لاج ويركور من تي عندك بوك أستاذ عبد الله فال